mu àndal yaraamaar gi mu seeti tey dégg naa ñoom lay seeti moo yey la fañ borom mbaam lay faral ce qui se ressemble s'assemble xale yu réew yëpp fa war a nekk réew ba dof waaye yaraamaar doo ko wax xamuñu tous kenn bëggul doom ju mel ni ñu nekk waa yaraamaar benn sénégalais bu ko jur doom mu nekk yaraamaar mel ni ñoom mel ni ñoom ñu ay sénégalais ay extraterrestre fii di Ablaye daan ko bul forcer de tudd loxo ñemu ko tudd di tudd lu bon a bon bi mu ne Ablaye Wade bul forcé man man ñemewuma tudd li wax bi ne Ablaye Wade bul forcé réew bu dof xale yi rew réew bu dof ce qui se ressemble s'assemble moo tax ma ne depuis avènement Sonko deug deug senegal saaga lañ gis Sénégalu sos Sénégalu fen senegal manipulation